mbokki Sénégal mbokk mbokki amateur yi Khadim Samb le grand communicateur traditionnel et son label Ndiakhem Production ñoo jëm ci deuxième édition sargal son excellence le président de la république Macky Sall mu nekk double sargal Khadim Samb dina sargal son excellence le président de la république waaye nag dina ca sargal yi tamit la première dame madame Marième Faye Sall mi jàppale jigéen ñi ak néew ju doole yi mu boole ñaari xale yo am jom kéwél moo cay jàkkaarloo ak ñàkk jëriñu ndaw drapeau bu rëy deuxième drapeau mooy drapeau d'affaires l'enfant chéri de Oréfondé ba tax na mu fas yéene ko delloo njukkal ci bésu son excellence le président de la république drapeau Tahirou capitaine Dina ak Sandré beneen drapeau ba monsieur Omar Sy DGEG ba Khadim Samb fas yéene ko delloo njukkal Albouri moo fay daje ak Sandengler ci invité d'honneur yi monsieur Cheikh Mbacké administrateur de société monsieur Samba Fall président fondateur groupe Kër Madior ca Mbour invité d'honneur yi monsieur Idi Thiam président national borom Ndoukoumane président fondateur du groupe Ndoukoumane monsieur Pape Demba Bitèye directeur général Sénélec taxawu président de la République ci Saloum ak ci Sénégal yëpp monsieur Maguette Sène DG bu Koud maire de Malicounda monsieur Mamadou Ndione DG COSEC jubóo ak service public ak secteur privé national monsieur Cheikh Issa Sall DG ADM président mouvement Amdem borom mbuur ci xel nduur ci xol Fada directeur général Sonacor monsieur Abdoulaye Bibi l'homme fort de Kolda DG de la Poste monsieur Pape Mayel Diop DG des aéroports du Sénégal responsable politique ci Dakar bés bango njaareem production bu El Hadj Khadim Samb mi ngi leen di jox rendez-vous le 7 août ca arène nationale deuxième édition drapeau sargal son excellence le président de la république Macky Sall muy fukki combat ci benn takkusaan ak njaareem production lamb